bonjour monsieur Sonko. bonjour ah, Nous euh, sommes États-Unis la euh, raison de visite bi ak euh, objectif pour ñu nous puissions jokkalante ak yi diaspora nous ñu ñu deux ou trois jours passé aux États-Unis nan lay demain. incha visite dafa dugg ci suñu cadre activité suñu tournée yi ñuy def. Mm-hmm. di nemmeeku sénégal yi fépp fu ñu ne. Mm-hmm. Euh, gën a jokkalante ñoom euh, xam ni ñuy dund xam lan mooy seen i mbébét mm-hmm. waaye it gën a échanger ñoom ci leen lii suñu gis-gis ñun ci Sénégal. donc euh, ñu ngi koy essayer góorgóorlu di def fépp ci Sénégal ci quarante-cinq départements yi ci communes yi. ñu jàpp ni nag. bëri na sénégalais yoo xam ne tey ngi dund bitim réew euh, jaat nañu fekk leen fa ñu ne waxtaan ak ñoom nga mun koo def comme ñu koy defee ak yeneen sénégalais nekk biir réew donc waral visite bi ñu dañ ko def New York euh, Ohio euh, ak yooyu suñu paree continuer dem Canada. Hmm. noonu lañ ko fas yéene def feneen ak lan ngay wax sénégalais yi à part euh, objectif yi ak euh, but bi. waaw leen wax rek ni euh, ñu ngi ma lu am am solo. mooy jamono joo xam ne. ci la ñu war a tànn. jamono tànneef. te li war a doxal suñu réew ci juróomi at yi di ñëw. ci loolu lañ koy tànnee. donc di. gën naa bu ñu rafetloo taxawaayu sénégalais yi ndax gis nañu li ñu doore ci li ñuy yëngatu ci politique bi léegi chaque saa su ne day gën a yokk mm. nit ñi dañu woon seen cofeel ak seen bëgg-bëgg ak seen ci surtout mais mm. di wax ni euh, dafa jot loolu yëpp ñu gën cee ñu gën a yokk taxawaay mm. xam ni lii ñu jëm moo war a déterminer lu bëri bëri ci suñu avenir du ma ne ci juróomi at yi di ñëw rek waaye lu ko ëpp ndax ñaare décision yi nga xam ne mën nañ ko jël ci juróomi at su dee décision yu baax. Mm-hmm. mën nañu topp quarante ans cinquante ans mm-hmm. leen wax it ni Sénégal ñoo ko bokk. dëgg la ñun rek ko mën a defar kenn du jóge kenn yàlla du wàcc defaral ñu Sénégal mm-hmm. bu ñu yaakaaree nit tubaab wala organisation internationale na ko defar ndax nañ suñu bopp. ñun ñoo war a am suñu fulla bopp gannaaw cinquante huit ans d' indépendance yoo xam ne ñëpp gis nañ ni. yóbbuwuñu fu sori. ñu jël suñu responsabilité ni ko ñeneen ak ñeneen defee ci àdduna bi euh, sëgg defar suñu réew benn yoon mm-hmm. defe naa loolu mooy message bi ñu leen mën a lancé di leen wax it mm-hmm. euh, quelques fois dañ fiy def mm-hmm. bëgg nañu rencontrer le maximum de Sénégalais di leen invité aussi suñuy activité wasalaam ok waaw ah, xam naa ñuy mujj dagg interview bi parce que gars yi ñi ngi demandé pour que ñu jéem a dem parce que comme fi ñu taxaw baaxul am naa du ñàkk su fekkee amaan nañ tuuti temps ñu ñu waxaat ci biir sinon mooy loolu.